alors quand je vous dis euh, phare bi wala ma wax leen monument de la renaissance seen xel am na ci lu muy dem fii ci ndakaaru fii la ñuy des tey ci de quoi est-il le ñu àndi ci ak Cheikh Diop Cheikh maa ngi lay nuyu Cheikh tey fan nga ñu yóbbu jërëjëf naata mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média tey fii la ñu nekk diwaan bi moomeel ngir xamle ko ak mbokku téléspectateur yi ñu dugg ci askan wi laaj leen gis naa kenn koo xamante ni mi ngi yor ndaamaram sëñ bi noo def maa ngi lay nuyu. waaw ah, ñu ngi lay fay si. mbaa doo fiir. non non du ma la fiir. <laughs> tur bi man Ibrahima. Ibrahima fii nga dëkk. man maa ngi dëkk Wakaam. yaa ngi xam nga turu moomeel fan la turu moomeel de dégg naa daal ñu naa moomeel non noonu ok donc euh, bëri na ñu fiy yeewoo ñoo xamante ni fi la ñu dëkk bëri na itam ñoo xamante ni euh, donc dañ fiy jaar saa su nekk euh, file ba mu sañcee boobaak léegi yàgg na waaye dañuy wëyaat ba tey gisante ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi dëkkee wala ñu fi nekk di fi daan seen doole ñu wax ñu ndax nga xam ne fa la ñuy xëy bés bu yàlla sàkk xam nañ ko waaw wala déet salaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay nuyu. sant maa ngi lay fay. tur bi naka la Pape. Euh, man Amadou Guèye laa tudd. Amadou Guèye. waaw dañ doon laaj ndax xam nga euh, turu Mamel fan la sookee de ah xaw ma ko nag parce que man yàggu ma fi def naa fi six ans rek laa fi def. juróom benni at. waaw juróom benn at rek laa fi def waaw. juróom benn fi nga nekk. Euh, non pas tellement parce que d' abord man je dama dama feebar. léegi ma nekk fii di fajo rek ak sama grande sœur. d'accord waaw ah, moo tax mais réellement xaw ma tur ma fu mu jógee daal. kon da mën nañ la ci dimbali am naa ci njort ne euh, daañ leen jéem a xamle ak euh, li nga xam ne moom moo di euh, turu Mamel sëñ bi moom mu mel ni bëgg na àddu jëkkati ay kàddu xam nga li may def est-ce que. waaw xam naa da ngay interviewé non. waaw damay interviewé mais li ma la bëgg a interviewé mooy que dama laaj ndax xam nga turu Mamel fan la jógee. waaw turu fu mu jógee chef de quartier ba taxaw mu ngi tudd rawaan Diop. moom moo sanc Mamel Mamel ci loxoom la sokkee ko man mii di wax ak yow maa ngi tudd Pape Sissoko man moo ma dalal fii jox ma fi place moom mooy délégué de quartier bi depuis Mamel ba mu sosoo ba léegi moom moo fi nekk. rawaan Diop. Rawane Diop Rawane Diop waaw. Euh, ñu dem xool El Hadj Rawane ñu dem xool El Hadj Rawane la ñuy wax euh, ci li nga xam ne moom moo di euh, quartier bii di Mamel joxoñ nañu këram itam moom daa mel ni itam moom moo taxaw ci li nga xam ne moom moo di bunt wi dañuy dem jokkoo ak moom mu wax ñu quartier wi le ana tur wi fan la sokkeekoo. El Hadj moom la ñuy wax turam donc papa maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi si jàmm yow lañ ñu joxoñ. alhamdulilah waaw. <laughs> waaw waaw waaw léegi lu ngeen bëggoon. voilà yow yaa de quartier bi. donc dañ bëggoon xam turu Mamel fan la sokkee ko nga baaxee ko mbokku téléspectateurs yi. waaw euh, Mamel aviation waa ASECNA ñoo defoon benn coopérative bu tudd Mamel aviation bi ñuy wut kër ñu ñëw fii état bi jox leen ko pour ñu dëkk fi euh, bi ñu tabaxee kër yi ba pare en 1984. ñu xam ni gannaaw fii waa aéroport la ñu liggéeyee di wàll un ci aviation te ñu ngi ci suufu mamel yi ñun ñi ko formé woon ñu jël carte bi tudde ko mamel aviation pour jàppale aviation fii ak euh, mamel yi ñu tudde ko mamel aviation en 1984. ndax également li mu jege phare des Mamelles bokk na ci li ko waral. waaw moom mooy lool phare des Mamelles ak phare des Mamelles yi mooy lool Mamelles yi ci phare bi ngi ci kaw Mamelles yi te ñun ñu ngi ci suufam. dëkk nekk wa aéroport di aviation waaw ñu boole loolu tudde ko Mamel aviation. jërëjëf voilà merci beaucoup El Hadj Rawane jërëjëf yéen maa ngi leen di gërëm di leen sant. voilà mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média ni ñu koy amalee saa su nekk ci yenn ci ay quartier wala gox yoo xamante ni ñu ngi nekk fii ci réew bu Sénégal daañu def itam euh, suñu kéem kattan ngir daal leen koy xamle ni ki tey ci Mamel la ñu dikkoon ëllëg itam daañu dem ci beneen gox xamle leen ko ngir rek ngeen mën xam turu euh, gox woowee ana fan la sokkee ko dig daje très prochainement beneen quartier. fii ci réew bu Sénégal. incha allah Cheikh Diop merci beaucoup euh, Mamel bu ñu ko waxee euh, Chérif sax xel day njëkk dem njëkk a dem njëkk dem je pense ci gone muy buy nàmp muy ñaar te je pense que ñaari euh, collines yi moom moo tax ñu tuddee ko Mamel ñaari parce que déjà sax forme bi ñu def comme genre koon nii day mel ni comme ween moo tax ñu tuddee ko noonu certainement <laughs> Oumy Samb arrêté yaa ngi may déconcentré <laughs> Chérif léegi bu bi gën a kawe ci lañ tabax monument bi bugguma fuurir ci antenne bi <laughs> mi arrêté explication boobu mu noonu nga joxee noonu la parce que ah, ki ñu naan mais c'est ça man noonu laa ko jàngatee vraiment aw ma ci woon xam-xam gëstu ma ci woon mais man c'est comme ça que je l'ai même euh, ku jàng bu sem deux sax jàngal quand même ci presqu'île du Cap Vert am na ñaari colline waaw colline volcanique la yoo xamante ni mhm. ñaar la benn bi da comme ni nga wax monument de na fi am na ci boo xam ne nag bi doon nekk phare bi xëy na léegi sax sax nit ñi xamul njëriñam parce Euh, urbanisation Dakar nit ñi di construire en hauteur ah, mais ñun ba ñu gone dëkk Pikine mhm. fi nga doon teg sax même boo nekkee R plus 1 da ngay apercevoir nga xamante ni mais dañ fa daan ba léegi boo xamante kon mooy faar après nag quartier bi ci la ñëwaat euh, ak ASENA nekkoon fi mais malheureusement tamit comme ni nga waxee dem nañ ba finalement ne aéroport bi doxoo quartier bi dem ba jël beneen dimension ñu ngi surplombé également nga xamante ne mooy mosquée divinité. Mhm. Euh, muy mosquée bu rafet ba ci quai de Ouakam bi aussi. Mhm. Euh, Marcel. <laughs> waaw Mamel foog naa ñëpp xam nañ ko ah Dakar et puis wàllu fi nga xamante ne moom la ñu tabax phare bi ñu ngi koy wax sànq Chérif mu ngi koy wax ça a été créé en 1864 ce phare là et puis nekkoon le plus puissant avec le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. donc muy culminé à mètres fi ñu tabax monument de la Renaissance à euh, 99 mètres. Euh, donc euh, comme ni ñu ko waxee rek je pense bu ñu nekk xale ba ñu daan ñëw Dakar xam nga ça faisait partie des des endroits où on, où on aimait bien aller pour euh, xam pour découvrir surtout ampleur bi mu doon joxe boo xasee ba nekk ci kaw gis la la vue dans son ensemble de la de la ville donc mu di benn benn bërëb bi nga xamante ne marqué na lu bëri itam ci ay yenn situation historique Sénégal comme le monument de la Renaissance bëri woon na fi coow bañ koy bañ koy tabax mm. et puis pas plus récemment avec l'usine de dessalement bi nga xamante ne jot nañ ko fa jot nañ ko fa instauré mu indi coow itam ci ci wàllu environnement voilà mm. merci Alaaji Malick <laughs> Mamel miinoon nga koom cosaan jeetu waaw waaw cosaan bi miin nañ ko parce que bi ñuy nekk xale surtout ñun ñi nga xam ne dañu dëkkee woon côté côté Grand Yoff noonu mm-hmm. boobu Ndakaaru melul ni mu mel ni bariwul comme ni Chérif wax bariwul woon ay mel c'était très visible da nga daan gis nu mu nu mu wëndeeloo euh, ça daf la doon émerveillé quoi. Mm. donc euh, mu nekk endroit bu nga xam ne wax dëgg laa c'est chargé d'histoire parce que euh, ay collines lañu yu nga xam ne ñun dañ ñu jàngaloon ni ay ay volcan la woon ca ay jamono mm. mais actuellement dañoo dee. Mm. dañoo dee ah, dañuy nelaw wala dañoo dee dañoo dee <laughs> nelaw <laughs> wax nga dëgg de àndoor ah. àndoor ah, ah, mi mën ngaa yeewu. est-ce que amul kenn ci ñoom ñaar kuy nelaw. Alaaji Malick ah non non est-ce que amul. dee na ak du mat daal. fonkaa yu dee la. Alaaji Maalik que amul benn ci ñoom ñaar boo xam ne day nelaw ak boo xam ne dafa dee. ngeen <laughs> ñaan yàlla mu dee. <laughs> ni nga ko waxee boo xoolee forme bi dafay mel ni. Euh, jigéen bu suwee di di di nàmpal. Mm. moo tax ñu tuddee ko les mamelles. Mm. donc turu quartier bi ci la jógee mu nekk aussi. Mm. Euh, vraiment endroit bu nga xam ne c'est à découvrir parce que ñun Sénégal. en général xamuñu suñu dëkk. te dëkk bu neex la. dëkk la bu bu bu bëri histoire te foofu boo fa demee di nga fa fekk musée yeeg yu mel noonu. Ah. donc mën nañu doxantu foofu ak suñu njaboot euh, découvrir fa lu am solo. papa yaay doom li ci biir bëri na. Ah, transition toute faite Ibou Diouf. wàllum culture bi moom itteel na la torop ndax gis nañ ñu bëri parfois boo demee ci monument renaissance da ngay gis ay waa biti réew yoo xam ne dañ fay ñëw sax voilà di photo et tout même par bi aussi. waaw ce sont des euh, voilà Euh, fu rafet la soxna naata euh, gis nañ euh, monument renaissance taxawaay bi mu am solo si mu am ci lépp luy jëmmal je dirais pas Sénégal mais askanu dër bu ñuul ni ko boromam sàkkoo woon waaye à côté da ngay gis ne de plus en plus bëri na ay galeries mhm. ay musées yu ndaw yoo xamante ne ñu ngi ko fay amal di wër noonu presque côté phare bi donc bëri na fa ay galeries yoo xamante ne ubbi na. c'est mhm. tout simplement parce que gis nañ ne ñuy jóge biti réew. de plus en plus dañ day bëri. Euh, Malick wax na ko léegi muy cadre boo xamante ne vraiment dafay c'est enchanteur comme on dit. Mhm. ndax plage bi plage bi euh, duñ ko fàtte bokk nañ ci plage yi gën a set. Mhm. ci fii ci Ndakaaru donc muy bërëb bu rafet. mooy boo wàccee mosquée divinité waaw fu fu rafet la même même wetu kii bi sax noonu. CDC euh, mooy clinique Mamelles. waaw clinique Mamelles bi noonu aussi c'est un bon cadre. Euh, ci ci falaise bi noonu. ay alpiniste dafa am ñoo xam dañ fay nekk pour ça. Ah, waaw di di ñokk ñokk di ñu fay tàggatu di ah jéem a yéeg. Mm, par contre c'est menacé quand même loolu aussi lu jar attirer attention nit ñi la parce que boo demee ci ginnaaw noonu li ko waral nag mooy tabax yi après vous demandez. Mm-hmm. ñiy tabax immeuble yi kan moo leen jox autorisation pour ñu daal di côtier et boo fa demee ba léegi vous da ngeen gis ay immeuble yoo xamante ne wàqi nan ni Malick naan volcan dina du ñëwaat du ñëw mais wàqi ba commencé chérif li gën a graaw du du immeuble yi ñu tabax xam nga loolu ay tabax la mais da xool falaise bi ñu ñu ngi jël di ko di ko daaneel di jël xeer yi xaw ma dañ koy jaay xaw ma dañ koy def ah. loolu presque chaque année ñu def ci reportage pour alerte mais ba léegi euh, ñi ko doon jëfandikoo ñu ngi continuer mm-hmm. bo bu bu fekkee da ngay faral di dem mamel da ngay gis affaire bi dafa affaire dafa dafa dafa gasu carrément donc loolu vraiment war nañ ci xoolaat ko bu baax a baax parce que amatul Euh, wóorul daal maanaam. Mm-hmm. côté boobu. Uh-huh. et et puis Chérif quand je parle d'autorisation quand loolu ay ay ay kilifa yu nekk ci réew mi nga xamante ni ñoom lañ dénk ci boppam ñuy lijjanti loolu noonu xañ na gis nañ fi benn association euh, buy défendre littoral bi voilà ñoom tout le temps dañ leen di dégg quand même ñuy alerter euh, ci construction yi am foofu noonu rawatina muy ay tibb suuf ak ay Marcel l'a dit aussi tout à l'heure usine de dessalement do bi ñu bëgg tabax foofu ak risques environnementaux yi nga xam ne mën na ko am. des assurances yi nga xamante ni président de la république lui-même moo ko joxoon parce que si vous rappelez affaire bi fi indi woon coow ci ambassade Turquie ñu ko tuddoon ko le de la honte après ci lui-même moo descendroon sur le terrain mhm. ànd ak waa perle yi pour le visiter après sax ne woon na moom am na suuf boo xamante ni am na fa bàyyi na ko dootul jële terrain bi nga xam moom la mais boo demee di doxantu ci corniche bi nga commencé fii nga xamante ni quand même mooy pointe des Almadies euh, kon mooy Ndakaaru di gis ni quand même ñaa ngi continuer la création notamment ñaar yi nga xamante mooy colline parce que immeuble yi ña fay tabax mm-hmm. ni quand mm-hmm. fay dëkk mm-hmm. ñaari ñaari mamel euh, ñaari kon mamel yi moo waral euh, turu quartier bi itam mamel gis nañ ni na ay mamel extension mamel aviation dégg nañ ko sànq xañ na avion yi daan jógee aéroport wala bu ñuy ñëw aéroport bokkoon ni ñuy jege moom moo tax ñu tuddee foofu tamit voilà ci piste bi la bokkoon ñu tuddee ko Mamel aviation merci beaucoup Cheikh Diop ci loolu 7 h jot na dañuy ñëw dem fële ca RFM bu leen fàtte ci kanam dinañ dalal Abdoulaye Cissé ci jàngat bi mu fas yéenee wax ci président Macky Sall ak ni ñu gisee mu jox ci bopp influenceurs yi bàyyi fi taskatu xabaar yi ndax daf leen di néewal doole Abdoulaye Cissé dina ci def ab jàngat euh, Serigne Modou Bara Dolly Mbacké responsable APR ca Mbacké moom lañ nar a dalal waaye fële ca RFM moom seen gan mooy Denis Ndour moom mooy vice